wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwatal kiram asxaabal maali saadatal ulama ayyuha saada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki tedd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar du leen balwaaq te leen balaaq di ñaan yàlla yal na yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fi ci ndakaaru dellu siwaat naa ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaar yonent yi alayhimu salaatu wasalaam da ngeen jànd seen mbokk oustaz Alioune Mbaye ginnaaw loolu nag ñoo ngi doole ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na doole faj aajo yi teggi tiis saafara jàngoro yi te jéggale bakkaar yi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 kon noonu koy dollee sant mu dolli nu aafiya dolli nu tal dolli nu wir te dolli nu saafara ci jàngoro ji nga xamante ni moonu te nag a jekk mënunu mënaluñu suñu bopp dara mus ñoo mënal suñu bopp dara te ba àdduna di tukki duna musa mënal suñu bopp dara ku yaakaar ne mën dara rek mbaa danga nga fay tekki dara rek jéemal na la ko sab xam-xam naxe mbaa sa wilaaya mbaa sa mbooloo mbaa say diplôme mbaa nguur gu landi lu mu ci mën a doon lu nekk ba ngay jiim ci lenn yàlla sa baqata dina bàcc ci biti yàlla toll foo xam ne nii par nit ñi xam ko par force nit ñi mooy kan par force ñu xam ni moo ñu moom mooy buur mooy bummi moo teg tànk ñépp baa ba na mu mel yàlla buur ba na mel yàlla fonctionnaire ba na mel yàlla sàmm baag nappkat ba ku nekk na nga mel yàlla la ngay jot ci sa loxo yàlla la koy jox seet fa mu koy jaarale kenn mënu ci dara déndam bii kenn tekkiwu fi dara kenn doonu fi dara laps temps bi nga fi def ak néew moom la neex bu ko neexoon dootoo dox tànk ci kaw suuf ñu gas ba mu xóor suul la ñëpp dox nga nekk ci suuf ne pat kenn la dara doo xamal kenn dara kooku yàlla kon dellu ci moom ak sant ko lewaayu ko sarxu ko tuub jaamu yàlla ci sunuy moroomi jaam ni ñun kenn ku ne nga xool luy bégal sa moroomum jaam nga def ko kenn ku ne xool luy neex sa moroomum jaam ci lu neex yàlla ci bégle ci ñam ci col ci kàddu gu neex ci jégaloog balu ci doxuk bokk ci dimbalante lépp ñu seet lu cay neex yàlla ñu def ko ndax yàlla du wàcc ne maa ngi nii waaye nag jaamam yi ci lay xool ñi ñi def ngir moom kon nag ñu sant ko bu baax dolli ko sant bu baax feeñal sunu tële ak sunu lot ci lépp lu mu namm ak lépp lu mu tëral musuñ ci man dara sunuy baayaati bàyyi sunuy maamaati maam musuñu koo mënal dara la mu nam may am la mu bëggay am lu mu war a loola war am lu amul loola warul am dara waru ko kenn topp ko dara ñu xame ko noonu waaye nag sañ nanu koo ñaan nag ginnaaw ay jaam lañu sañ nañu koo ñaan mbas mii yàlla ñu ngi lay ñaan di la sarxu ak di toroxlu yàlla nga ko fi jële bul nu topp yàlla boo nu topp yàlla boo topp ñeennat ci ñun ñu mel ni man ak ñu ma xaw a nuru bul ñu topp dañu la xamul bu nu la xamoon lii lépp duñu ko def kon yàlla boo nu nattu yàlla yàlla mën nga noo teral sans condition mën nga ñoo dundal ci donkaas gi sans amul dara lu la lu la déranger ñëpp bu ñu lankoon kandaare weddi sak am du tee nga am du tee nga ne fi jëkk fi mujj fi di dogal lu la neex kon weddi sag am ak ñàkk laa jaamu teewul ngay buur di bummi lépp yow a yow su ñëpp àndoon ne yow itam dolliwul ci sa pouvoir bi dara dara la ci dolliwul kon nag te am nga tab goo xam ni ñëpp ñu jëkk ña ñu mujj ñi ñëpp bu ñu toogoon di la ñaan ku nekk dinga ko may ba dootul am fu mu def la mu yor te yow li nga yor dara ci jóge kon antal jabbaaru antal qahaaru antal wahaabu antal razaaqu antal fattaax waaw antal baasitu yaa nekk ca kaw yaa ne ci suuf yaa nekk penk nekk nekk nekk sow fépp yow wax kon yàlla na fi mbas mi jóge te nga wuutalal nu ko koom-koom mu landi ak ngëm yàlla ak tuub ak ragal ragal bàkkaar ragal ñaaw téef yàlla nga nu roof loolu ndax jàmbaar amul ku nu dimbal rek am kon yàlla yàlla nga nu teg loxo tegal askan wi loxo àdduna bi yépp nag ndax boo nee jullit rek mu xat mbaa nga ne ab sénégalais mu xat waaye yow yaa moom ñépp lu fi nekk yawa kon ñu ngi lay ñaan sa yërmande bi nga wax yàlla na nga ko gën a dawal ci dënd bi ci àdduna bi yow rek lañu yaakaar dañu xamul rek waaw kon nag yi fi àngoog su loolu weesoo eh, doon lay ñaanal suma sëriñ ba suma soppe ba sëriñ Alioune Sall Safiyeetu ñaanal ko yal na yàlla yeesal njëggal ci moom yal na yàlla yeesal yërmande ci moom yal na ko yàlla mbaa yàlla yàlla bu ko yàlla topp dara bi jaay si wujudi wa alami shuhud yaatal këram googu mu tëdd ca bar sax yaatal ko fa lool jàmmal ko fa lool moog mbooleem ñamu fa fekk ak ña ko fa fekk ak ñun ña ka fay waaj a fekk yal na ab bëggagunu ko waaye yàgg gaaw dana nu ko defi waaye yàlla na yàlla na àpp soriantoo na yéen yàlla dëkkal ci àjjana yi gën a kawe defal ko sunu baay defal ko sunu yaay ak sunu maam yi ak mboolem ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di koy ñaanal soxna yu maa mbay sunu jigéen sunu soppe sunu lépp ndeysaan doon sunu soxna ca jàmmalaay soxna oustaz Omar Sarr tabaarakallaahu di nuyu Penda Mbay sunu jigéen ba la ca ndar di ko ñaanal te di ko siyaare jërë ngeen jëf loolu rek la ñu bëggoon euh, ubbee ginnaaw bu nu ñaanee yépp mbokk yi ajuma ji nu génn bi nuy tàqalikoog yéen ñu ngi àndoon ak sa maam Mawlaana Seex al Malik Si radiyallahu taala anhu ci téeram bii ñu tudde Xilaasu Zahab fii siirati xayril arab baarakallahu ñu ngi woon ak yéen nag ci li nan bu taraanga feeñee noon feeñ noon yokk bu taraanga amee rek noon yokk kii doon wooye Muhammadul Amin di ko woy nit ko maanu ki di ko woy ko jub ki ku am secret dénk ko ko am xalaat dénk ko ku am alal dénk ko ñépp wulu ko mooy doomu dëkk bi ñépp nawloo ko kera ba mu ne yàllaa ma yónni ca la jàmm jeex garaat yi ñu ko tappaloon yépp ñu nangu ko nit nag moo mel noonu nit moom lépp lu mu la tappal boo amee xel bul ko jël tegal foofu bu ko soxlaa jël bu defee du indi vide ci yow waaye nit fal la wala nit dénk la walla nit jox la bu la meree nangu ko bu lay meree di ko nangu yàlla rekk lay mere te du ko nangu ndax du jëflanteeg jaamam waaye pal gu la nit jox boo amee xel bul ko bul ko seex mukk ci sa di ba ñu déggat yi képp kak sa cati baaraam rek bu leen indi nga ne ko am nga na doon ko nga doonoon ma ngoog moo tax ñi ñi ñi sax ci pouvoir ñëpp dañuy am problème sérieux ndax problème yu génn lañuy am problème mu bàyyi waaye boo yeewoo dëgg dawal te ba nga amee tànk nit a mel noonu moo tax Mawlaana Seex Alxaaji Malik kero bu mu jógee ci eh, convocation yi mu convoqué woon mag ñi baay bi bàjjeen ya te aboo lahabin waxoon ko wax ju diis ja te ni ko tabbat laka alihaza daawtana yàlla nga tos toskare yàlla nga pert àdduna ak àllaaxira lu mel ni nga ñuy wooyee ñun ñi di say baay woowoo ñu fulla wooy ñu fayda xanaa nan yàlla la yónni yàlla bu amoon keneen ku muy yónni dina dina dina la yónni yow ana sa baay ana sa yaay la jur limal ko limal ko limal ko lépp loo xamante ni yàlla koo xam ne yàlla jël na ko rek te mu jege woon ko mu ne kon loolu référence la ci doy na ko ci ne kon comme yow doo yonent sang bëgg nga fay suñu borom ni ko déet lu mu bon bon lu mu yées yées sa baay la ndax moog sa baay bokk baay kon jógal foofu ma saagal la ko ca la saara wàcc tabbat yadaa abi lahab wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kasab sayasla naaran zaata lahab wa imratu hammalatal hatab fii jiidihaa hablun min masid loolu ko gën a metti do ba léegi nit ñaa ngi koy jàng léegi nag bi ñu ñëwee xam ni kii ku dëgër ci li mu nekk la ku sax ci li mu nekk la ah Alaaji Maalik nee na ñi gënoon a soxor te gën a bon ci moom nee na bankal sa baaraam man limal la ashadu durran min al aadaayi abu lahabin wal aswadaani walidun xaarisun bihimi nadrun zuhayrun abu qays nabbahun munabbahun wa oqbatun wal aasi abul xakami wa mutcimun wa ubayun maca rukaanata maalikun umayata ahlul baghi wal fasmi nee na ñii ñoo gënoon tar ak nooneel ci moom ñoo gënoon soxor ci moom maam ñoo ñen la mu ne ko a jëkk mooy Abu Lahabin Abu Lahab moo gënoon a soxor te ñu tuddee ko Abdul Uzza Abdul Uzza la tudd ibnu Abdul Muttalib mu nga Abu Lahab ka ca topp mooy Aswadaani aswadaani ñaari aswad ka ca jëkk mooy abdul yaxuus abdul yaxuus euh, euh, moom euh, moom ñaari ñaari ñaari gaa yi ñuul ya aswadaani aswad bii mi ngi tudd abdul yaxuus bee mi ngi tudd abdul mokkal ibnu mokkal wa walid ibnu mugira ibnu abdullahi ibnu xaaris ibnu qays ibnu adi ñi gën a soxor ñooñu ci lañu bokk mu ngoog nadr ibnu haris ibnu alqama zuhayru ibnu umayata abu qays ibnu kaafiha ibnu mugira nubayxu munabbix ñoom ñaar ay ñoo bokk ñoo bokk bàyyi ku ñu xajaaj moo leen jur uqbata ibnu muayib moom it ci ñi gënoon soxor ci la bokk aas ibnu waayil ci ñi gënoon soxor ci la bokk abul xakam te mooy aboo jahlin ñu tudd ko amar ibnu hisham moom it ñi gënoon a soxor ñi gënoon a tar noone te gënoon a caay-caay ñakk yërmande ci ñii euh, moom mii ci la bokk nee na rukaanata moom itam rukaanata ci ñi gënoon a soxor ci la bokk rukaanata ibnu adi rukaanata bi moo romb yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon ci pénc mi daldi ni ko euh, kaay ñu bëre sang bi jàdd nii mu ne ko kaay bëre sang bi jàdd nii mu ne ko bëgg bëre bañ bëre gàcce gu rëy dal naw ndax dafa ne carfal yonent bi sallallahu alayhi sang bi nag yàlla roof ko dooley nubuwa mu naj ko naka mu ko naj nag sukkar bi ko rek mu ne gàng jaaxaan yàq tubéy yi yaxeet tabaarakalla tabaarakalla euh, kii ku gon ku taroon noone la ku bañoon sang bi la alayhi salaatu wasalaam mu ngoog eh, nee na ubay ibnu xalaf moom rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam musa rey ca xare ba ñuy wax xare Uhud ndax moom moo tëkk woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu jógee xare Badar mu nu ko maa ngi yar sama fas woo xamante ni bis bu ñu dajee di nga xam ne bési góor a koy bay danaa la def loo xamante ni kenn mosuloo ko def yow rek ma ñor keneen ma sangam ni ko baax na ba nu day yow de bu boobaa sax yow bis boobu man maa rey te ci sa ngànnaay li lay rey ci sa kaw fas wi laa lay rey nettali woon naa leen ko keroog ba ñëwee waxtaane xare Uhud ma ngoog Maalik ibnu Kinaanata moom ci ñu gënoon a tar noona ci la bokk Umayyat ibnu Xalaf kooku moo moomoon Bilaal te daan ko teg teganaay yu métti ya daan ko mbugal mbugal yu métti ya te Bilaal moo ko rey moom tam kero xare Badar maam alaaji Maalik nee na ñii ñooy ahlul baghi wal qazami ñooy ñu beew ña ti ëppal ci ñaawteef amul lu ñuy tegul njabootu yonent bi sallallahu alayhi ñi nga xamante ni dañoo dañoo tuuboon te di ay néew doole di ay doxandéem mu ni ko na waa maam boo waxee ñi gënoon a soxor ana ñan ñoo gënoon néew doole mu ni ñi gënoon a néew doole ka ca jiitu mooy Bilaal ibnu Rabah bilaal mii wax naa naan yaayam xamaama la tudd bi pël mu rafet moomu yaayam jii di xamaama e, sët la woon walla boog jorbaat la woon ci e, abrahata kere ba mu abrahat di toj si kaaba ga ci lañ jàppale woon na sii jaay ko nag looloo waral e, rabaax moom itam ci jëwrin la yi la woon waaye dañ ko dañ ko dañ ko mbaayal la woon waaw xalaf mii eh, dafa dafa baa yàlla woon rabaax ci la jël rabaax nag may ko xamaama xamaama mii moo jur bilaal ci histoire ba ba ñu waxtaanee ba ñu waxtaanee histoire bilaal déggoon ngeen eh, histoire bilaal ba na ma mujje nee ku ñu wax amir ci ñi gënoon néew doole ci la bokk suhaybu ruumi ci ñi gënoon néew doole ci la bokk aflahun ci ñi gënoon néew doole ci la bokk yaasir gën a néew doole ci la bokk maa ali karami moo waa këram ñu tedd daña ñoo gënoon ñoo gënoon sonn ñoo gënoon a doy waar ndeysaan ali yi mooy ñan maam mu ni aani sumayata waa këram ñu tedd ña ndax amaar ibnu yaasir moo jëkk a tuub yasir baay bi bi ñu waxtaane yaasir déglu ngeen xissa ba na mu demee woon boo gisee bii damay tënk ndax du ma dugg ci détails yi lu baree baree bari ndax lu ci ëpp boo may xool ci waxtaani koor gi eh, boo tappee YouTube di ko fa gis incha allah ni ki noonu it Abdullahi Ammar Miqdaad Miqdaad ibnu Amri moom dem ci ñi gënoon néew doole ci la bokk xabaab ci la ñi gënoon néew doole ci la bokk moom ab ab tëgg la woon waaye dana dem ba nekk ustaas di jàngale oustaz ambulant di dugg ci kër yi joxe ay cours di jàngale umu umay eh, umu ubays ci ñi gënoon néew doole ci la bokk lu bay nata ci ñi gënoon new doole ci bokk zinniirun ci ñi gënoon néew doole ci bokk nahdiyatun ku ñu wax jigéen ñu wax nahdiyatun mawlaat nahdiyihim moom it boroomam ki ka moomoon xam nga ndaw si ndeysaan moom tam dafa demoon ba feebaru katarak jàppoon ko waaye daal wala bokk bët yi muuru ndeysaan moog doom ji waaye ki ko moomoon nag soxor lool benn bis rek nag <clears throat> mu taxaw ci buntu kër bi di leen di leen liggéeyloo di leen xarxare xare ŋàbb yaram di lay di leen rootloo ay paane ndox moog doom ji ndeysaan ñu sañu ñoo noppalu ndax jaam lañu ndaka ñu dem rek euh, mu dégg euh, Aboubacar de traverse dégg mu naan billaay giñ naa ci laata ak Uzza du ma leen may jàmm ba feeg deewu leen du leen may jàmm sa xol ba bon bi soxor dong la jàpp wóor na wóor leen sa bët yu yii nga ni tamaax dafa doon gumba dara yu bëwul ko lu may rek bañ bi nga bañ laata ak uzza moom dong moo la dal ndeysaan Abubakar dégg ko nag ndeysaan daal wëññi ko daal di ko nuyu ak moom ñu ko waa soxna si man daal ay jaam jigéen laa bëggoon wër naa ba sonn aw ma waa tey ma jaay sa ñaar ñi mu ko looy doyee xaj yi ñu bon ñi loolu di doyee ñii ñii de dañoo ñii de kenn bëggu leen Abubakar ni ko déet bu ni man kay li ma jàll wër kay ñor na ma mu ni ko loo man ci ñoom mun ko xama prix mu wax ko prix par exemple bu ko ne woon euh, cent cinquante mille aw bëgg nag dinaa la jox deux cent cinquante mille mu ni ko ngan lan mu ni ko waaw waaw xaalis baa ngi nii amul espèce la amul chèque amul wiri soxna si daan ni cëpp ni ko indi xaalis bi gaaw bala ci cat dugg indi xaalis bi daal leen woo ñu leen ñëw leen ñu ñëw Aboubacar ni leen goreel naa leen goreel naa leen bis ni tey kenn moomatu leen demee ngeen noppalu sangu leen te julli te noppalu te dem toppi seen diine ni ngeen ko bëggee Abubakar alalam ji yëpp ci jënd ay jaam di leen goreel jënd ay jaam yu góor ak jéebéer jigéen di leen dundal lool la alal di jariñ xettali nit ñi jàppale jaami yàlla yi waa waaye yor alal kortu koo nekk moom ci banque bi doo ci maye doo sarq doo xettali kenn doo jëndal kenn ordonnance sa yoon nekkul ci kenn amoo yërmande ci kenn ah baax na daal xaalis de loolu rek lay jëriñ dimbali dimbali waaye nag bu fekkee ni ah da nga xaalis lekk ko xam nañu fi ñuy mujje ndax li nga am li nga liggéey lekk ko sa biir lay mujj bu reesee xam nga fi muy mujj waaye li nga jël na jox ko jaamab yàlla boo xam ne danga nga ko jox ngir jëmmi suñu borom loola nag moo lay xaar ëllëg ci sa bàmmeel mu ngoog kon Euh, ginnaaw coono yii nga xam te ne moo dal ñii maam ñii fu ñu mujje maam alaaji maa ngi nee na azina al muxtaaru fi rajabin hijratan li habasha ama xamsin taalibi salabi maam alaaji maalik nee na azina al muxtaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na fii rajabin ci weeru rajab hijratan ñu gàddaay ndax booba dóor yi metti na bunduxatal bi metti na rey gi métti na assornement bi metti na te booba amagul doole moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te booba sunu borom joxu ko ndigalu fayu loolu yépp metti ñu koy teg aw ditam dóor guddi dóor bëccëg toroxal lekk bàyyi leen fitna guddi fitna bëccëg amul mag nga amul gone nga loo màggat màggat gone mën na laa yenn loo paanul ndox wala mu yenn loo ay siwo di la di la liggéey liggéey boo sañ te bañ te doo ci amee dara sañoo moom sañoo denc dara mu mitti lool ndeysaan kera bi ñu rey sunu maam jii di di yaasiir dañ ñëw ni ko sang bi sa waa kër ñi day sonn nañu génnal nga gis leen boog mbaa nga ñaan yàlla boog mu wattul mu wallu leen ay sang bi ay salaam génn ñokket génn seen ni ñu def nañu def kii euh, yaasir yaasir noo ngi ko takk ci bant simmi ko mu set wicc desewul lu dul li muy suturloo lu muy suturlaale jëmbam ci naaju tàng wi solul dàll solul mbaxana ñu yeew ko mu ni ngodd ci lan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu wax fitna gu métte métte métte métte ya ya kii suma yeta mi itam nett naa la keroog fitna gi ñu ko teg waaw takk tànkam ndeyjoor ci giléem gee takk tànku càmmoñ ci giléem gee dàq giléem gi mu jëm saw dàq gi mu jëm penku ñu war ko xar na xar xar aboo la aboo jahlin saay saay bi amul lu mu def lu may jël xeej bi dëbb ko ci digg bi biiru soxna si ba mu raw ba sar jigéen jii moo jëkk jaay bakkanam ngir ngir baatu ashhadu an laa ilaha illa mbokk yi fii jar na taxaw tuuti li tax mu jare taxaw mooy nun nu xool suñu bopp gor yàlla yii jaame yàlla yii doon joxe seen bakkan ngir lislaam siiw ngir lislaam am doole lun nu gëne lun nu mëne ñun nag ñu ñoo ne fi di foyee diina ji di caaxaane suñu bopp sànq suñu dund nanguñu jàngal quraan ñu dimbali kuy jàngal quran suñu yoon nekkul nituk diine jël xaalis teg ci suñu kanam jël pouvoir teg suñu kanam jël ay luxe ay matières yoo xamante nii meddum àdduna dong la loo fi bari la bari la bari du la tee feebar du la tee dee nga bàyyi ko fi keneen ñëw jël ko àdduna seytaane iblis yor ko di ko naxe jaame yàlla yi di leen ko xëllamtoo ñépp buur da wuti leen defe ne foofa la fekk na du foofa na leen bàyyi xel suñu bopp bàyyi diina ji ñuy foye diina ji ñuy caaxaane diina ji ay bakkana tëdd ba bala ñu cee jot yoo xamante ni taluñu woon samp kër taluñu woon dund vie de famille taluñu woon dara lu may baatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi bilaal li mu daj fitnaal gi ñu ko doon fitnaal di teg ay xeer ci dënnam bi di cippeelu ci biiram bi di ko bërëñ ci xeer yi ginnaawam gépp dagg ñu tiim ko di ko dóor ay karawaas ay leraw di ko dóor naan ko weddil bilaal di gën a gëm yar bu dal rek bilaal di gën a gëm yar bu dal rek bilaal di gën a gëm di ko dóor mu naan ahadun ahad ahadun ahad di ko dóor naan ko ahadun ahad ba abubakar mu baax mi radiyallahu taala fekk fi ñuy dóore bilaal mu daal ni xalaas yaa ngi maa jaay kii man soxla naa ko boo ko soxlawul danga naa rey rek jaay ma ko ma ne ko jox ma njëg loolu kii lu mu la jaral kii bëggatuma ko gis soxlaatuma ci moom dara mu tudd ko prix bu noonu da ko wax bu doon da ko jotee quatre cent mille abal que ni naa la jox six cent mille mënu ko indi indi xaas ba indi xaas ba indi xaas ga gis nga ñooñu dañu dañu bëgg dërëm Aboubacar nag li mu yoroon da ci doon dimbali jaame yàlla yi daal di buuxeet six cent mille teg ci loxoom exemple laa lay jox wax ma nag loolu la jare bi mu ko yëkkatee teg ci loxoom mu ni ko tekki leen buum yi ñu tekki buum yi teggi xeer yi ndeysaan bilaal jóg diggant gand tànk yi rek raan mu miir ndeysaan àgg suuf ñu jox ko ndox mu naan joxaat ko ndox mu sëlmu toog tuuti ximaliku ndeysaan Abubakar ne ko bilaal mu ne ko la béyk mu ne ko bis ni ki tey goreel naa la at laqlu ko goreel naa la tey kenn moomatu la kenn moomatu la waaw bis ni ki tey yaa ñëpp yaa ñëpp yem Eh, kenn moomatula dootoo jaamu kenn radiyallahu kooku mooy Bilal ibnu Rabah radiyallahu taala anhu ni ki noonu itam Bilal eh, ginnaaw moom Ammaar mi xam nga moo présenté Bilal moo présenté Bilal yonent bi sallallahu alayhi ni ko am na jëmm ju baax boo ko gisee rek sopp ko moom ñépp la yemale amul ku xees amul ku ñuul amul jaam amul kenn milliam ñëpp ñoo yem waaye keroog ba ko Bilaal gisee tabaarakalla macha allah <clears throat> moo tax bi bi bi bi lor yi mettee lor gi métti dóor yi métti na fitnaal gi métti na nee na azinal muxtaaru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi digle ñu leen na ngeen dem Éthiopie bu ngeen demee am na buur boo xam ne ma nga fa du tooñ te du dimbali kuy tooñ du buur bu jub la buur bu maandu la dem leen foofee taalibi salami ngeen wut ngir ngeen am mucc foofa maam alaaji Malick loolu kañ la mu ni ama xamsin bi nu boo gi amee juróomi at ci weeru rajab nee na ci la rasulullah sallallahu alayhi wasallam digee digee diglee diglee ñu dem foofa raddal atiiqu la daa barqil gimaadi jiwaaru xaarisin fa atiiqun xayru muslimi taway jaholiina jasil bari qad rakibo baan waya rajulan fi arbacin runumi وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار بالقدم Maam Alaaji Maalik nee na radal atiiqu Abubakar Sadiq mi bokkoon na ci ñi jëkkoon bëgg a dem gàddaay dem Éthiopie waaye dafa dajee góor gu baax ku ñu wax xaaris xaaris ni ko Abubakar foo jëm mu ni ko fa ma mën a amee jàmm mu ne ko luy loolu mu ne ko damay génn màkk dem Éthiopie Afrique ginnaaw ñun mënuñu am jàmm te waxuñu lu yàlla kenn la Muhammad yàlla ko yónni fitna gi métti na dóor yi metti na léegi nag dama bëgg ànd ak ñii jàppalante ñoom rawale leen ba seen diina raw xaaris ni ko déet yow kat man danaa la garante yow ni nga mel ci dëkk bi ak ni nga toll ci dëkk bi ak judd gi nga fi am rafetul ngay gàddaay waxuma la ngay dem Afrique man dinaa la garanti wàññikul nga toog ndax yow am nga fi njariñ kon waruloo dem maam alaaj mel na nee na fa atiqun xayra mustalimin aa ah, eh, nee fa atiqun ku gore ka ku mucc ka ci safara abubakar laa ci namm nee na xayra mustalimin E, werantewul de gën gi wommat la def ànd ak xaaris mii jiwaaru xaarisin ci gaarante xaaris ña des continué nañu ña ca des continué nañu tawajjahoo li najaashil bahri qad rakiboo tawajjahoo ñoom ñépp nag jubal nañu nag jubal nañu ca najaashi yu najaashi yu e, tuddul najaashi yu mi ngi mel na fii ci senegal boo faloo rek di damel damel de kayoor ku mën a falu rek sa tur say tur day daal di réer noonu la mel ci ci ci ci ci ci ci ci ci Éthiopie euh, boo faloo rek najaashi yi ngay tuddu waaye najaashi bi asxamatu la tudd ni ki noonu misra égypte moom itam ku fa falu rek sa tur day daal di réer firaaw ngay doon les firaawunuun les firaawun même ba seen équipe bi sax les francs nañ leen tudde mu ngoog ni ki noonu tam euh, nguuru Kisra moom itam ko fa falu rek furs ngay doon buuru furs waaw ni ki noonu tam rome yi ruum te mooy Iran nee na ñoom tam ko fa falu rek kaysar ngay doon nguur gi buuru kaysar ngay daan doon nee rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni leen dem ca dëkk ba fa fa ñuy wax buur bu dul tooñ nga fa du dimbali kuy tooñ te kat buur bi chrétien la ci diine yonent Yàlla Isaa la nekk waaye na nga déglu moom lii ko sang bi seereel te gisu ko mosu koo gis li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàllaa ko yónni mu ngoog waa maam maam Alaaji ñoom ba ñu dem ñaata lañu maam nee na banqat sa baaram nee na baa an wayaa rajulan baa an ñaar wayaa ak fukk kon fukki góor ak ñaar ñoom lañu woon ba ñuy dem ca najaas yu fii arba'i runumi ak ñeenti jigéen gis nga moo tax téere ma ñi dañu dañu dañu luxa runumi gis nga arba'i runumi maam ñooñu nu ñu tudd mu ne premièrement ka ca jëkk mooy Ruqaytu bint Rasul sallallahu alayhi wa mii may nañ ko Ousmane ibnu Affan radiyallahu taala anhu Ousmane bokkoon na ca gaddaay ànd ak moom ak kan maam mu ni ak sahlatu bint Suhayl jigéen ñuy wax bint Suhayl moom itam bokkoon na ca ña doon dem ak kan maam mu ni ummu salamata umu salamata mi bintu umayata moom àndoon ak jëkkëram dem bi mu demee ba foofu saan jëkkër ji wàcc liggéey mbaa nangam nangam euh, ci la ko sang bi nag door jëlaat daan ci ñëw bu egse ci soxna yi incha allah ñeenteel mu layla bintu xaflatu layla bintu xaflatu ñeenti jigéen ñi ñoo ànd ak fukki góor ñi ak ñaar ba pare dem nag bàyyi seen kër ub seen njaboot dem gàddaay dem waaw maam ba nu yeggee nan la mbir mi demee maam ni ko maa ne woon yaa xaysal bahri lil asdaafi kon déglu ma xaala najaasiyu islil ardi balaxoo xat balaxoo antum suyumun wa tayru charri lam yusumi ba nu yegsee ñoom yónnee nañu ndaw waa Quraysh yónnee nañu ndaw pour dab si leen dab leen bu ngir wàññi si leen toroxal leen a ah, bi ndaw li ñëwee indi alal ju baree baree bari ñëw ni ko dafa am ay saay-saay yu jóge màkk ñëw ci sa réew mi làqatu fi mais ay saay-saay lañu ay criminel lañu defkatu njaaxum lañu moo tax ñu daw bëgg a raw waa ma waa Quraysh yónni woon ma nag pour nga jox ma leen ma yóbbu leen waaye buur bi nekk buur bu baax nekkul buuru borom benn nopp kilifa gu la gën a yor benn nopp moo la gën a daanu ci mbooy gi koo xamante ne ku mujj sam nopp rek yow ku mujj sam nopp rek lu mu wax rek loolu rek moo mën a am loolu musiba la bari na kilifa yu bari ci trompé waaw yu baree baree bari kilifa rek laa wax kilifa yëpp nag moo tax même sa jabar sax même boo dee kilifa kër sax bul nekk benn nopp sa jabar ñëw wax la mayel batma li mun a wax nga xool bul ko weddi bul ko saxal xoolal rek jël yàlla sa muy sa kilifa mu orienté la waaye najaas yu ni kon woo leen ma ñooñu ñu ñëw ñu woo leen ni leen waaw loolu moo leen jotale seeni bokk booba jaafara nga ca jaafar leen ñun dey dañu nekkoon ci réer amuñu diine ay bant lañ daan jaamu ak ay xërëm ak ay dénk ak ay weñ ak ciment yooyu lañ daan jaamu te ñoo ko daan defar ba mu rafet di ko wër di ko di jaamu muy réer gu métti ñu daan naan sàngara di lekk medd di siif jigéen ñi di dab ñi di nangu seeni alal ci loolu la nu màgg ci la nu judd ci la màgg ñu dem ba am ku judd ci sunu biir wan ñu yàlla wan ñu lislaam wan ñu civilisation tere ñu lañ daan def ñu gis liñ doon def réer ak ngëlëmte la woon ñoom ñu sax ca la ñu nekk ñun ñu nekk ci lii ñu ne ñu ñu ne ñu loolu du ngeen ko fi defe lii moo ñu jot la lañ ñoom am benn waa bi jóg ni ko ni waxul dëgg kii li mu wax dafa mbubboo diine waaye même Mariama sax ak Aïssa dañ dañ koy dañ koy ñàkke teggin dañ koy dañ koy séyute allahu akbar Najaashi ni ko lan la seen yonent bi wax ci Mariama ak euh, ak ak ak Isa seen Jaafar jóg jàngaleen suuratu Mariama jàng jàng jàng ba daaneel allahu akbar ndeysaan dani bismillahi rahmaani rahim wazkur fi lkitaabi maryam iz intabazat min ahliha makaanan sharqiya fa axazat fa axazat min duunihim xijaaban fa arsalnaa ilayha ruuxana fa tamathala laha basaran basharan sawiya qaalat inni auzu birrahmani minka in kunta taqiya qaala innama ana rasulu rabbika li ahaba lak gulaaman zakiya qaalat anna yakunu li gulaam walam yamsasni basharun walam aku bagiya qaala kazalika qaal rabbuk wa alayhi hayyinun wa linajcalahu aayatan linnaasi wa rahmatan minna wa kaana amran maqdiya fa hamalathu fantabasat bihi makanan qasiya fa ajaaza fa ajaaha almagaadu ila jisi naxla qaalat yaa laytani mittu qabla haada wa kuntu nasyan mansijja fa naadeeha min tahtiha alla tahzani qad jaal rabbuka tahtika sariya wa xuzzi ilayki bi jis i naxla tas tusaaqit tusaaqitu alayki rutaban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarenna min albashar fa imma tarenna min albashar ahadan fa quuli inni nasartu rahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ndeysaan ba mu waxee ba daaneel mu ne teg gars yi commencé ruube Najaasi ne déglu leen bi nga waxee lii ba pare bi mu demee ci mbokk ci ci ay mbokkam lu mu na fa atat bihi qawmaha taxmiluhu qaalu ya maryam qad jita sheen fariya ya oxta haaron maa kaana abooki imra asaw in wa maa kaanat ummiki bagiya fa ashaarat ilayhi laa ilaha illa allah fa ashaarat ilayhi mu junj ni leen wax leen ak moom qaalu kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya qaala inni abdullah aatani alkitaab wa jacalani nabiyan wa jacalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bilsalaati walzakaati maa dumtu hayyan wa barran biwaalidati wa lam yajcalni jabbaaran shaqiyya wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubaasu hayya sadaqa allahu alazim mu leen zaalika Iisa bnu Maryam qawlul xaqi allazi fiihi yamtarun maa kaana lillahi an yattaxisa waladan toog subhaanahu ida qada amran fa innama yaqulu kun fa yakun inna rabbi wa rabbukum inna allaha rabbi wa rabbukum faabuduhu haasa siraatu mustaqim sadaqa al asim jaafar bi mu jàngee ba daaneel xam naa firi bi du di xaj bi jaafar jàngee ba daaneel ndeysaan góor gi ni ñokki dar jóg taxaw laa ilaha illallah eh, xaa ma ñëwala tuuti rek ci li ma doon firi ndeysaan eh, mm, eh, kii ni ko najaasi ko wax ma tuuti ci seen yonente boobu lan la wax ci lan la wax ci Mariama ndax li ndax dëppoo na ak ñun liñ ci jàng walla déet jaafar jóg ni ko auzu <clears throat> sunu borom nee na ko waskur yow Muhammad fàttalikul ci biir téere bi fàttaleel isin tabasan min ahliha makanan sharqiya bu musaan gis baax day dem ba ca côté jàkka ja ca fa féete penku foofa la daan toog làqatu fa nekk fa bu mu demee ba yàlla nam loolu ci moom nag mu amuk doom nag yàlla yabal jibril ni kon nag dama nam ma mu am doom ndax man ma bind jigéen mu am baay te amul do te amul yaay ma bindit góor mu mu mu amul yaay amul baay muy aadama aadama amul yaay amul baay maa ko bind sama loxo ma bind xawaa mu génn ci faaru càmmooñu ci faaru aadama euh, kon aadama mooy baayam ma bind isa mu am yaay te du am baay ma bind ko leen yéen ngeen di am ay baay ak yaay lii man maa ko def nee na lii sunu borom moo ko def nee na fa arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamassala lahaa basharan sawiyyaa bi mu ñëwee wax ko loolu xaal mu ne ko a'uuzu birrahmaani minka in kunta taqiyyaa maa ngi làqu ci ginnaaw yàlla bu fekkee yow ragal nga yàlla bu fekkee ragal yàlla yow man naka lay amee doom aw ma jëkkër te narumaa def caay caay ne ma narumaa def ak mbon loolu wax la xaala jibril ni ko innama ana rasulu rabbik man kat sa ndawal borom laa yàlla ma yónni ci jëm li ahabalaki xulaaman zakkiya ngir bu ñuy jàng li yahabalaka da nga koy delloo ci yàlla fil mu daari ji li yahabalaka li bu lee fii am li nga moom faayil bi moom moom la bu boobaa li ahabalaka xulaaman zakkiyan loolu la yàlla namm euh, jibril ëf te te te poqataanu ma doom am xaal ana yakun li xulaaman wa misni basharan wa lam yakun baqiya naka laa mën a amee doom te réewuma beewuma yàquwuma xaala kazalika qaala rabbuka huwa alayya hayyin aha kañ noonu nga ko waxe nii sa boroom nag noonu la ko lépp yombe bu bëggee ne mbir nekk da daan ko nekkal loolu nekk wali najaalahu aayatan linnaasi wa rahmatan minna yàlla da ko nam ma def nag mu nekk kéemtaan ci nit ñi wa rahmatan ak yërmande minna bu bàyyi ko ci suñu borom subhanahu wa taala wa kaana amran maqdiya mbir ma nag nekk nañ mbir mu na rek nekk mu daal di nekk laa ilaha illallah ndaw si wasin jaaxle gisoo doom gisoo jëkkër gisoo dara am nga doom ak nit ñi ni ñu mën a waxe sunu borom ne ko bul tiit ëkku tàndarma goo xam dafa wow ko mu dee ba dara ne ko ci laal ko mu laal ëkk ga ëkk gi ni jalab jalab jeeb bi ci saasi meññi doom yi ñor xomm ruttaban janiya mu ne yaa layta ni qabla yaa layta ni mittu qabla haasa aka neexul ma dee bu yàgg koo kuntu na semman seema fàttali moo lii fu ma koy waxe ji fu ma koy waxe ji fan laa koy waxe ji sunu borom ni ko laa tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya wa huzi ilayki daggal ci tàndar ma jooju rek ndax euh, di nga am loo lekk di nga am loo ruyoo di nga am loo sombe di nga am tiir laala rek mu wàjj mu wàjj moo tax nee nañu jigéen di tollu ci wasin dara gënu la dara gënu la am solo ci dimbali ko lu may tàndarma ju nooy waaw tàndarma ju ju ju mu lekk dana dana dimbali wasin wi dana nooyal yoon wi mu war a jaar ba dana wasin wasin gu gu gu sedd mu ngoog nee na ko mu ne ko fokku lii washra bi bu bari nga lekk ci naanal ndox a ngi foofu nga as ci naan mu ngoog mu ngoog bu boo demee kër ga nag ñu naan ñu lay bëgg a wax wax ju bëri fa xuuli inni nasatu rahman sawma nee leen dama woor du ma wax waaw fan ukali mi insiya du ma wax ah nee na faata bii xaw mu daal di ñëw ci nit ñi ñëw ci dëkk bi taxmiluhu yor doomam xaalu ñëpp nag laa ilaaha Maryama ay Maryama laqad jiit seen fariya yaa uxta Haaruna yow kat indi nga lu rëy indi ken lu xamul de doom amoo jëkkër amoo waxaale ah. yaa oxta haaruna yow mbokkam haaruna haaruna nag ñoom bokkul ak moom dara haaruna dafa rafetoon jikko rek ñu taf ma soxna si ci jikko jooju ñu mbokk rek haaruna ñu ko yaa oxta haaruna yow mi nga yaay mbokkum haaruna ci def lu baax ak wax lu baax maa kaana abuki imra sa baay imran de baaxul bonul sa yaay xanne tam bonul yow de li ngeen di mbir la maa kaana ummi ko baxiyaa rek fa asharat ilay nee na mu junj leen junj leen ni leen wax leen nag moom wax leen ak man mënuma wax xaalu ñu ne ko kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiya naka la ñu mën a wax xale boo xam ne mi ngi ci berceau mi ngi ci berceau nga naan wax leen ak moom bul ñu ñu dofloo Mariama wax ñu wax ñu lu leer rek Isa daan ni inni abdullah déggal inni abdullah benn man day jaamub yàlla la néewul ana ibnullah de néewul doomu yàlla laa néewul jorbaatu yàlla la néewul yee rakku yàlla la wax ni inni abdullahi alquran la mi ngi ci suurtu Maryam aaya vingt-neuf inni abdullahi benn aataniyal kitaab yàlla na dina ma jox téere muy constitution boo xamante ni moom laa indi ci sama xeet ñaar wa jaalini nabiyan yàlla dina waxtaan ak man dina ma déy dina ma sant dina ma tere te dinaa leen déy dinaa leen sant dinaa leen tere ñeenteel wa jaalini mubaarakan yàlla dina ma barkeel wa aynama kuntu fu ma mën a nekk wa awsaani bi salaati dana ma sant julli wa zakaati ak génne asaka ci ñu am alal maa dumtu xayyan sama giiru dund wa barram bi waldati sañ na ma ni naa baax jëm sama ñaari way jur naa tela sama xam nga ne nga nga mën a justifié bàyyi waaye bi waldati mu ngoog yàlla jigal ne ma ne naa rafetal jëm ci sama yaay ji sama sama ndey ji di Mariama walam yaj'alni jabbaaran shaqiyya sama yaay beewul rëyul jalgatiwul salaamun alayya jàmm yàlla dana nekk ci man danaa mucc dana dund yow ma wulitu yow ma amutu ba may génn àdduna mooy yow ma ubbax saxya sunu borom ni waaw zalika isa ibnu mariam wax jii day kii day wax lii mooy isa ibnu mariama waaw qawlul dëgg ji mu wax ngeen nekk ci di ko werante maakaan laa ñu taxi sa war dan ya lii rek ngeen naan yàlla am na ci doom ak yàlla am na jorbaat yàlla am na nangam nangam subhaanahu toog ida qada amran yàlla neen su ma bëggee lenn nekk fa innama yaqul lahu kun fa yakun dama naan loolu nekkal mu nekk waaw inna allaha rabbi isa nee na leen inna allaha yàlla rabbi mooy sama borom du sama baay wa rabbukum tam yàlla mooy seen borom moo leen moom faabuduhu na ngeen ko jaamu xaasa lii siraatu mustaqim moo yoon wu xoj yu jëm ci ngërëm allahu akbar bi jaafar jànge lii ba daanu ba daaneel nee na najaasi ne ñoo ket aa yéen seen yonente bii li mu wax ak li ñuy jàng ci injiil ñun ci évangile benn la benn la waaw maam ba mu waxee loolu lan la wax mu ni antum suyumun wa tayru sharri lam yaswi mucc ngeen mucc ngeen ba ngeen àttanee daw ba dugg ci dëkk bii mucc ngeen piccum musuba du naaw mukk tiim leen piccum ay du naaw mukk tiim leen def leen fu leen neex frontière yi fu leen neex dem leen fi kenn du leen ni seen bët ci suuf a ngi fi def nañ leen comme ñu fi dëkk tey allahu akbar waaw maam lu ñu maam nee na min qisati najmi abo raajiina ila naxwi ahaali wa zaadu siddata saxami ñoo bon dañoo jékki-jékki rek is qaala tilka alxaraaniqul ula sajadoo zannu li jahlihim taazima amrihim lakinnaha qissatun axyaaruna taanu fiha kasat taanu fi raawina min amami mamalaj maa yal na ko yàlla fayal nee na aaboo dellu siwaat nañu màkka raaji na di yaakaar nag ni lanu déggoon ci qissatu naj mi ndax dañu ne yonent bi salaa sallam tilka xaraaniqul ula inna shafaatuhum la turja ñu ne yonent bi salaa nee na nangul na nangul na yéefari kon ñu seen xaraaniq yi mooy seen yàlla yu gudd seen yàlla picc yu guddi yooyu ñu daan jaamu daa dana ramu ëllëg ñu ni ah kon nag yonent bi am na convergence Euh, jubóo ak waa Màkka ñoom tam ñu dégg loolu ne daal di daal di ñëw loolu yépp dara du ci dégg maam nee na euh, euh, nee na axyaaru naa laakinnahaa qissatu axyaari naa sunu waytànnee fii taanu jam nañu bii wax fii haa ni ki noonu ka tam jam na ko fi raawiina min amami ñi ngi xam ñooy solo ay xadis ak di topp histoire jam nañu wax bii nee nañu wax bii du dëgg amul fenn waaye ñoom ba ñu ñëwee nag yiif gën a tar gën a metti maam neen lu ñu def haajaroo aydan niswatuhum xayyun rijaaluhum fi iddati aljamami وثانيا هاجر أيضا ونسوتهم حي رجالهم في في عيدة الجمام nee na deuxième gàddaay ga gàddaay nanu aydan ba tey dañu delluwaat na dañoo yii fi gën a tar mu gën a métti maam nee delluwaat nañu ni ko am di ñu delloo ñaata ñoom ñaata lañu mu ni xayyun niswatum xayyun am nañu fukki jigéen ak juróom-ñett xam nga bu jëkk ñeenti jigéen rek moo ñoo ñoo demoon ak fukki góor ak ñaar nee na bi fukki jigéen ak juróom-ñett delluwaat nañ waa góor ñi nu mu toll mu ni rijaaluhum seen góor ñi fii iddatil jamam yi toll nañ ci jamam maam luy jamam miim 40 miim 40 80 nga ma wax jiim 3 muy quatre vingt euh, quatre vingt trois cent quatre vingt ñii dem nañu dem euh, gàddaay yi kon nag mbokk yi tabarkal la ñu teg ko suñu baaram ba juma ji la ñu jëm incha allah ñu toppal leen xista sang bi alayhi salaatu wasalaam su ko ne suñu téere maam ji nga xam ne moo mokkalu ko déggunu ko waaye góor-góor rek ak jëm cee bëggal soppe yi ak waxee ni nu dégg rek di jéggalu njuum tey ku ci am loolu man jubbante rek nga jubbante ñun ndax waxi mag daa naqaree nettali ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Oustaz Alioune Sall ci yow la ñuy tàmbalee nuyu la ziar la bàyyi la ak place bi incha allah ba pare ñu alaaji Mbàkke si la ñëw moom itam ci jotaayu daara yi incha allah bu guddee alxaji imam Mor Seck dinañu ànd ak moom ci alminbar seen mbokk Oustaz Alioune Mbelle woon Pape Laye Dieye ci technique bi asalaamaaleykum wa